dañuy liggéey daan suñu doole lañ xam fu ñu dem ne dañuy liggéey ñu jëlee ñu fa ñun fii yàqaluñ kenn canal bi lañ sës ak université bi kan lañ yàqal te fii yëpp ay agresseur ñoo fi newoon fees fi dell ñun bi ñu ñëwee di jaay fii benn agresseur nekkatu fi léegi nag ñu jëlee ñu fi ñun ñu dem torox ak suñu njaboot ñun dañoo yor suñu njaboot di daan suñu doole yaakaaruñ kenn yàlla lañ yaakaar ak yonent bi di dimbala suñu suñu jëkkër di dimbale suñu njaboot léegi bu ñu fi yëkkatee fan lañ jëm torox wala ñuy dox di sàcc wala ñuy dox di agresseur indi ba agresseur yi fii fekkee li ñuy def lu baax la dañ koy wan nañ ko wan Macky Sall mu gis xamne li mu def dara baaxu ci toroxal nit la toroxal njabootam ak famu dekk Macky Sall nga ko njabootam nga ak yaayam nga ak bayam nañu dimbalé ngir yalla ñun fi lañ am canal bi lañ am dimbalé ñu wajur mom lañ am fi bi ñu ñëw fii kenn soxlu won fi wa koñ bi dem ba sonnal maire bi ñu jaay koñ bo ci nekkul bo ci juddul amo droit jaay fi koñ bi senegal du doxee non ku jógee Fuuta ku jógee Casamance ku ku dëkk Fann ok yëpp ay sénégalais lañu. bi ñu ñëw fii ay ak gerseer ñoo nekkoon fii guddeeg bëccëg jigéen yi heure bu lu neex la ñuy dox man door nañ ma fii def nañ fii lu ne na naa fii ak gerseer teñ nañ ma fii kaso ak gerseer def complot wo ay police nee na man ma ak gerseer lu dañ naa ko fii lu gis nga dem nañu suba ngeen gis lee fii ñu escalé benn maire du dem ci biir université bi loolu la ñu bëgg te seen koñ bu doon bëgg wallaahi dañuy ñëw man maa xeex ak ñoom amul fi ma jaarul ak ñoom amul fi ma jaarul ak ñoom mais ginnaaw def nañu ne nag lépp bàyyi nañ si loxo yàlla mais Macky Sall war na xam réew mi amul liggéey ñii commencé cent franc ba dix franc ba am ay seen un million tey bu ñu ñëwee war na leen yóbbu beneen béréb mais dem leen toogi vraiment métti na trop métti na métti na même déguerpissement bi ñu defoon fii à 2015 ba léegi am na ko wérul parce que marchandise bi ñu yóbboon ba léegi am na ko wérul mu ngi fii si ñun.